Euh, mooy euh, Bogal mbaay euh, nañu dem seetaani clip am te ñëwaat léegi ci plateau bi ay suñu baax nan def leen ma dox bi su ko defee dinaa ko liggéey man jamono di dox ba askan wi jël Euh, Samira sa invité ngi noonu. waaw kii mooy euh, Bogal Mbaye mi ngi way li nga xamante ni mooy jooy askan bi ñu ngi lay nuyu Bogal di bàyyi nga nuyu téléspectateurs yi. asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp kenn ku nekk turam ak santam di nuyu Abba di nuyu Adja remercier aussi ci dalal bi ñuy dalal di leen wax kontaan nañ ci merci beaucoup. tey nga indil ñu projet bu bees euh, muy jooyu askan bi de quoi ça parle lan lan moo tax nga choisir jooyu askan bi. waaw en fait euh, jooyu askan bi benn mos bu ñu inspiré la bi nga xamante ni comme que dañuy jëm ci élection ci réew mi dañuy gis à chaque fois tànneef yi tànn di leen jox suñu gox ñuy jiite dañu nekk ni ñoo xamante ne dañu leen di tànn mais suñ faloo duñ leen gis te duñ leen dégg ñu nag dañoo bëgg képp ki nga xamante ne yàlla dogal na ñu tànn la si gox nga nekk koo xamante ne da ngay nekk seen bopp nekk seen bët nekk seen làmmiñ waaw moo waral ñu inspiré ci morceau bi wax nag waxuñu pour agacer kenn mais c'est juste que benn message bu ñuy lancé bi nga xamante ni dañoo bëgg aussi politiciens yi xam ni cër bi ñu am askan wi leen ko jox mais du ñoom kon nag la leen ko delloo loolu nag laa ciy lancé quoi comme message. ay dëgg nga leen wax sax ay dëgg nga leen da ngay gis ku laajte maire yi place sàngam ñu fal la fa maire boobu nga fay gëj doo fa dëkk. ah doo fa jaar xamoo la fay metti yoon ya baaxul euh, lii ne man xam naa trois maires yoo xam ni wala quatre maires ñooy meilleur maire ci réew mi. mais du ma ko wax ndax boo waxee kenn lu baaxam am na ñooy xas mais am na ay maire yoo xam ni kii jël sunu yaay yi sax sax leen ay maire ñu xam ne ñooñu ay maire lañ sax leen gën. waaw ah, na yoo xam ne du maire dara. la moom dafay wax ci aspect mais da ngay gis. parce que actualité bi la way waaw da ngay gis war a dem ci chef de quartier bi mu war euh, euh, mhm. la ngi nelaw demal ba midi wala. doomu chef de quartier yi. loolu dëkk ci quartier bi par yenn saa ñu kaas doomu chef de quartier bi. yenn saa nga dem bi seeti chef de quartier bi doo ko fekk fekk fa doom ji mu yaakaar ni papa am moom moom quartier bi sa papa chef de quartier lañ ko fal ay kaay defaral ñu ay xaw ma kii de résidence ah. nga naan ñu ay da ngeen dem ba lëndeeg ay yooyu moomu leen quartier bi de. moomu leen ko koo dégg. waaw waaw loolu c'est vrai ah. non coono bi askan wi. Ah. peut-être loolu lañ ko cee dañ ko yemale fii rek mais askan wi aspect yi coono ñuy jànkonte dafa bari. Mhm. yooyu yaa ngi imaginer par exemple benn député. ñu mën kaa fal mu taxaw ensemble naa man député président la kon déjà trahir na population bii xam ñoo ko éliroon au pouvoir mm-hmm. yaa ngi mën a gis yow nga dëkk ci gox bëgg a gis sa maire am ay jafe-jafe yi xam yaa ngi jànkonteeg moom soo demee duñ la faale ñun acteur politique la ñu li ñu gën a koy jooy ay acteur du moins maa ngi juum ay acteur culturel la ñu mm-hmm. ñun li ñu gën a naqari mooy actuellement ci du quartier yi projet culturel ci mairie zéro zéro d'ailleurs moom war sax déjà man may organiser benn journée culturelle le 12 novembre fële ci njaaram li moomu laay benn journée boo xam sëpp lépp dama ko tuddee dooleel art dooleel art bi mooy dans damay invité artiste ballet ñu def prestation en même temps aussi damay invité artiste comédien yi ngi def comédie show ba pare ma jouer en live ak tous les artistes de Guédiawaay yi nga xam ñoo fa nekk au niveau département de Guédiawaay parce que ñoom maire yi wala ak ñoom ñu fa nekk defuñu seen role rôle defuñu liggéey bi nga xamante ne moom la askan wi doo xaar ci ñoom kon loolu day nekk ay ay yoo xam ñoo koy génne suñu xaalisu bopp te kenn jàppale wuñu ci benn côté à part say say partenaires ñi nga xam ñu lay jàppale kese à part ça sinon boo doon jooy xaar rek ñoom dara du sotti quoi te loolu daa a jeex. vous êtes pour wax. Euh, ci mm-hmm. jooyu askan bi ndax ay porteurs de voix mm-hmm. Mm-hmm. Euh, ci kaw loolu euh, jooyu askan ci projet bu bees la wala. waaw jooyu askan mi ngi nii doog a génn dafa war a fekk aussi benn album bu ko war a accompagner album bi defoon nañ ko depuis avant ñuy voyager à à l' étranger mais benn moment dañoo génnoon. dañoo génn maa ngi woon Italie jóge fa waaw gis Demba Guissé gis na ma gis na ma Paris Paris gis na ma Paris Paris lañ gisante wax na dëgg gisante moom day nettali rek <laughs> mais nag sama xarit la sama xarit la ku baax ma ak moom yàgg na depuis jamono DJ Yves mhm. kooku du tey quoi Demba Guissé gis na ma Paris waaw vraiment mu nekk sama gain bu baax ñu jóge ah, ah, Paris lañ mujjee parce que Italie lañ njëkkee jóge fa dem Allemagne doog a jóge Allemagne doog a ñëw Paris parce que Paris dañ fa am benn groupe benn groupe boo xam ne dafa reggae lañ fay def waaw am solo donc euh, tey dañuy wax euh, promotion single bi euh, moom la ñuy def maanaam clip bi génn wax ñu kan moo def son bi kan moo def clip bi ak fan lañ di dem pour mën ko seetaan sant wax ñu say projet waaw son bi ñu ngi enregistré studio Def Art bu Naya Ndiaye mhm. moo def son bi en même temps aussi moom moo def euh, vidéo bi mhm. mu nekk tamit benn benn waay joo xam ne dafay jàppale vraiment artiste banlieue bi quoi mhm. mu nekk ku ñu mhm. war a soutenir parce que moom bis bu ko àggee fu mu war a àgg insha allah rabbi artiste yëpp dañ ci gis seen bopp waaw di gërëm nag kenn ci man muy Seynabou Sène bu Sène koo sama jigéen sama xarit chéri Papa Dieye Dieye production waaw di sama di yaayu Ndéla sama doom sama seddo ndeela mi nga xam ne bëkk démoon anniversaire ma koy wax ni ko joyeux anniversaire sama doom ci waaw aussi di nuyu ñoon day ñun Ibou Baar di nuyu ñoon Assane waaw ma Ndiaye Baara cosmétique mbaa sa ngeen kon nee leen jox ay parfum yu neex incha allah di may mun Maymouna Samb di nuyu ñoon Botor di nuyu waa koñ bi di leen wax ñu préparé ajjuma bii di ñëw ci terrain basket bi incha allah naa leen defal concert bu jéggi dayoo incha allah le 12 décembre bi le novembre bii di ñëw incha allah di nuyu sama soxna Mami Cissé ak sama bébé Nabou di nuyu sama xarit yi nu day sëy di nuyu ñëpp bàyyi ma kenn kenn kenn. ñu ngi lay kontaanee. waaw bu baax a baax. a baax. ñu dem seeti ki nga